laqil lisaani waxlulan minhu lmuqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abad kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di siyaara di beral nu siyaar waa daaray xikmatal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 tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sangub sang yi sayiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu waxoon ko ci xol ab xol ni mu amee solo ci nit nga xam ne bu baaxee nit baax waaye bu yàqoo nit yàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa toog ak saxaaba yi ne leen am na dogu nekk ci jëmm bu baaxee lépp baax waaye bu yàqoo lépp yàqu ñu ne ko dog woowu mooy wan mu ne leen mooy xool alaa wa inna fil jasadi mudxa isaa saluxat saluxal jasadu kullu wa isaa fasadat fasadal jasadu kullu alaa wa xalb am na feneen fu waxaat ne sun borom tabaaraka taala du xool ci seeni melo du xool ci seeni alal waaye ci seeni xol ak seeni jëf lay xool inna allaha laa yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila xulubikum wa ahmalikum rawaaw muslim kon loolu lañ ciy déggee mooy xol bu rafet rek moom mooy jëriñ nit àdduna moo ko jëriñ tamit àllaaxira buñ demee ci alquran sax suñu borom tabaaraka wa taala day wax ci suratu shuara ay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett di wax ne yowmal xiyaam de alal lu mu bari bari du fa jariñ kenn ay doom lu ñu bari bari duñ fa jariñ kenn la fa jariñe daal mooy xol bu mucc yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata bi xalbin salim sëriñ Tuubaa sunu yaakaar it buñ demee ci téere ba ñuy wax aljawharun nafis dafay wax ne maanaam xol bu bu bu cër yëpp dajee xol mooy buur bi xol mooy buuru cër yi lum digle la cër yëpp yi def lu mu tere la cër yëpp yi bàyyi fu mu jeng jëmit la cër yépp yu jeng jëm kon loolu kenn ku nekk war naa tax nga jéem a defar sa xol te rafetal ko sëñ bay jaxate itam ci wayam yu neex ya ak njàngale mu mat ma dafay wax ne lu dul xol bu set lu dul xol bu rafet rek yéef ab yéefaral la ko ëppale kon nag nit ki dara du ko jariñ loolu ab xolam bu rafet moo tax mu naan lay tax nga jiitu say moroom tey ak ëllëg fa sa borom ba ñëpp naa amoo moroom du nelaw ak lekk lu fexe la am lu kenn amul te loola nag yàlla asal du kër yu jag du ay alal du soxna yu soq ko foofu yéefar yi am nañuy alal te am na ñuy soxnaa ki njël yàlla la ab yéefar amul ak topp yàlla gu nangoof bari alal taxul a gën néewi alal taxul a bon lay tax nit ay gën a ko bon ca xol ba lay nëbboo ko boofu am na feneen fu muy waxaatit ne jàppal sa xol bi defar ngir xol bi moo di sa kër defar sa kër bàyyi sab xol moo lu muy xala faj sa kër lu jag jag te sab xol taq répp lu bon du tax nga gën kat fa yàlla mbaami ngonk ki xaj sa kër lu jag-jag te sab xol taq répp lu bon du tax nga gën kat fa yàlla yi mbaami ngonk ki xaj defar sa xol bi ba xol bi leer leere ka melax moo gën di wut néega kiy sàkket yu fàtt taraj ña dëkke woon taax kaw tey jëf lu bon ña nga tey ca sëg yi ñuy caw yar foo tollu dégg faraj kon nañ góorlu te jéem a rafetal sunu xol te xam ne xol bu rafet Euh, mooy jëriñ ab jullit tey moo koy jariñ tamit euh, ëllëg mooy taxit ngay wattandiku ay bàkkaar sa digganteeg sa borom waaye mooy taxit euh, ngay wattandiku ay àq sa digganteeg say moroom te it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu na kenn ci yéen ngëmam du mat ludul ne lam yéene boppam da koy yéene moromam mhm. kon nag nañ rafetal suñuy xol ñoo ngi santaat sunu borom tabaaraka wa taala bu baax sant Cheikhul di soññ sunu bopp di soññaat eh, mbokki jullit ak mbokki taalib yëpp rawatina waa daara Hikmatul mi ñi nga xam ne ni ñi ngi ci biir daara yi ñoo ngi leen di ñaan bu ñu mënee am ci carte membre yi ñu am ci ñi nga xam ne ni am nañ carte membre nga xam ne ñoom bokk nañ ci jamxee bi ba noppi eh, addiya yi ñuy joxe weer wu nekk it ñoo ngi leen ci soñ gannaaw buñ ci soññee sunu bopp te xam ne jëmut fenn furut ci liggéeyal sunu borom tabaraka wa taala ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir rek la jëm kon nag euh, mbokk yi nga xam ñoo ñooy toppatoo yooyu danañ ci def ay soññee fan yi insha allahu euh, ñoo ngi soññaat mbokk yi nga xam ne nii itam ñoo ngi ñuy jàppale bu baax a baax ci liggéey bi te démb ñu jaaroon ci seeni tur incha allah kon daara ji moom tàmbali na euh, ku ci bëgg ay leeral